yoor yoor bi yor yooru koor ambassadeur yonent bi salallahu alayhi wa salaam oustaz Mohamed Ndiaye eh, ziar ko bu wér naka noonu kooku di oustaz Malick ak gan bu màgg bu tedd boobule bàyyeekoo ba yëmbal ci ndakaaru eh, moom aatu mbaw wax dëgg yàlla dañu fi tagg Seydina Mohamed salallahu alayhi wa salaam ñëpp daan nañu lu neex doo bëgg mu jeex waaye dafa fekk rek programme moo ni tëddee kon Oustaz Mouhamed Ndiaye cant ak ngërëm ñenn la ñoo am mbégte bànneex daal di feggoo ak moom ñu ne mën ko itam loolu Oustaz Seyd Diallo dama gis ndeysaan wallaay faral di wax mag day yaru mag bu ma gisee mag yaru ma ne mag bi dafa yaru ba si yàgg ma ne est-ce que dinaa ne nañu wax ne mag bi dafa yaru ah kay fii nga daan toog wuutu ki nga xam ne mooy euh, sëñ Baara jenn jenn Baye Baara surtout Mbeng ak Aram Sarr ca Louga ca Njàmbur Cheikh Yumpaañ doomu yaay Faati waaw nga daan toog fii mas boobu dafa xaw a tawat xaw a absenté yooyu léegi na tey dama gis maas ñëw nga ne ko non kay toog fii nga cëral ko loolu loolu dama ko gis mu marqué ma tabarkaal il fallait moo ko laay laay fan direct mhm. maas da kontaan si loolu <laughs> maas na moo nañ la euh, <coughs> jërëjëf soxna Thiaba jërëjëf soxna Thiaba maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. ñu ngi lay fay. Euh, di la ziar chéri Dadi. maa ngi lay toog euh, di nuyu Dadi aussi mu ci États-Unis ñu ngi lay fay mais di nuyu aussi euh, Serigne Bara. Mhm. Hmm? depuis lu nga xam naa mi ngi ñuy suivre. Mhm. mais tàmbali nuyu bi aussi ci kilifa diine yi. Mhm. ndax réewum Sénégal kilifa di ñoo ko téye ci ay ñaan ba mu taxaw ku nekk jël ba nga jiite ñu ngi lay ñaanal baax nga yàgg fi loolu te mais di bàyyi xel caba ñi nga xamante ne ndeysaan tey jii instant bi ñu wax nii ñu ngi ci lalu hôpital ñu ngi feebar naati mhm. kaaf mhm. ndax gis nga boo duggee hôpital souvent mhm. yàlla na la teg jàngoro souvent mais pour nga xam la <coughs> pour nga xam la parce que man tëddum ba léegi maa ngi ci repos waaye dama ne comme euh, commissaire nee na ma kaay liggéey eh, si eh, eh, ba maas naa naa naa naa bàyyi ñëpp ñoo ah. liggéey si vraiment <coughs> léegi <coughs> léegi maas kan mooy commissaire ah mais ca ca plateau bi ku fi commissaire ku dul yow léegi pourquoi nga tuddee ma commissaire. Ah, ah, bëgg enquête bëgg liggéey gëm service. tabaarakalla ni bu toog. mu ngoog waaw loolu aussi xam nga. poche bi ñëwati eh, mais aussi boo nekkee boo nekkee ku mel noonu ci liggéey ku mel noonu ci liggéey même boo amee tawat doo mën a toog parce que danga naan boo xoolee ci moom rek. Hmm? ba bi muy ñëw mi ngi naan am na lu mu yëg ci yaramam mais mi ngi nii toog waaw kon ça veut yi que tey ji dañu am mission boo xamante ne uh-huh. sénégalais dañuy xaar uh-huh. kon loolu aussi foog ñu ñu ci bàyyi xel <coughs> mais du nuyu baax aussi oustaz euh, uh-huh. Seyd Diallo euh, suma xarit euh, gis nga ku dul cëral ni doo am cër la dama ñëw mu ne ma noo kaay toog nii waaw loolu lay wane nekk wàcce boppam la ku ku modeste la et puis boobu ba léegi aussi ñu ngi koy suivre aussi moom mu ku pertinent la macha allah boo waxee sénégalais yëpp déglu ko di nuyu suñu gan gi mais aussi di nuyu sama xarit sëriñ bi nu see borom taw feex maa ngi koy ziar bu baax di nuyu samay sëriñ uh-huh. yaay ju baax ak baay ju baax man ñooy samay sëriñ maa ngi nuy bu baax a baax di leen ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal wéy juru jàmm ñëpp ñëpp aussi waaw di euh, béral nuyu aussi caba euh, mm. euh, ñooñ l'hôpital yi mm-hmm. ñooñu l'hôpital yi ndax taxaw bi waaw ndax tax ndax taxaw bi waaw di nuyu bu baax a baax docteur Mboup ndeysaan kooku sama sœur la Euh, depuis hôpital Dalal Jàmm ak équipe bi nekk waa Dalal Jàmm yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu aussi euh, suma directeur Oustaz Assane Diouf maa ngi koy di ko ziar bu baax mooy suma PDG temps yi euh, Thiaba Kaddu Gango. Mass <coughs> Mass mën nga lu ne macha ah. ci kër gi. <coughs> Oustaz Assane Diouf mooy suma si boppam moo doon nangu jërëjëf Mass yan na yàlla yokk tan wi parce que wala dëgg yàlla wér gu yaram moom kenn amul loo koy jëndee mhm. amul price ba ñu koy waxaale ca market ba la mhm. santé n'a pas de prix euh, kon moom mooy li njëkk wax dëgg yàlla yal nañu ko yàlla may bari nañu tëdd si l'hôpital yi yal na yàlla yëkkati leen ba ñu doxi doxiwaat seen i soxla ni mu leen neexee delluwaat si seen ay activité waaye bari na itam ñu koy sooxuwaale mhm. yal na yàlla teggi leen ko ba tey la kon yal na yàlla wér yokk wér wi Mass Mboup ñu nuyuwaale soxna Ngoma. Mm-hmm. ñu am mbégte bànneex daal di fi goog moom oustaz euh, Seyd Diallo Diallo Ahmadou di Diallo Jéeri mm-hmm. borom Medina saa yu yëkkatee kàddoom du ñu bëgg mu daaneel mm-hmm. euh, bisimilah salaamaaleykum. Euh, waaleykum salaam ajaratu Thiaba. Medina moom am na borom. kan mooy borom. yaay <laughs> borom Medina. man mii waaw yaay borom Medina. ooyee. Oh. borom États-Unis. eh. yaa ngi Canada <laughs> Babacar Lo gi de. waaw ba Sydney nag jox la ko. ndeysaan di la bu baax mhm. ci liggéey bi comme ni ko maas waxee mhm. liggéey moom jox ko àqam rek looloo lay war mhm. kon ñu ngi ñaan yàlla yaram bi nga xam ne ni ngi def ay signal mel ni luy sutante yàlla na ko yàlla def mu doon loo xam ne lu passager lay doon sunu borom subhaanahu wa way tawat yëpp mu saafaral leen maas wax dëgg yàlla ku bëgg liggéey la ku gëm service la mhm. li muy wax ni yëpp moo gën a gëm service mhm. donte léeg-léeg ñu ne ko dema reportage muy ngand ngandalu <laughs> waaye de dina dem bii ñu tàmbali nii di nga dem di sa eh, diwaan la Vass xamal ne am na benn plan de travail bu ñu la fi tegal mhm. incha allahu rabbi bu ñu paree nañ la defal benn briefing wax la ba yan lieu nga war a dem jëli ay image incha allah eh, kale nañ ki nga xam ne moom nga war a àndal incha allah am da am tan yàlla yàlla yàlla def tawfiq ni koy waxee rek euh, doomu aadama am na engagement yoo xam ne boo xasee ba jël moomatoo mm, sa bopp. Mm-hmm. xanaa ma wax ko caba léegi. Mm, mm. samedi jóguma ci lal. Mm-hmm. samedi. bi ma julee fajar. Mm-hmm. vingt deux laa jowaat ci lal. yeewu soxna si war a yeewee ko. ma ànd ak moom hôpital. fàtte sama bopp. ci ay tàkkusaan. ñu ne ma maas yaram bi fu sutante. ma ne kon man. bu may raam di waxtatu di ñëw sax dinaa dikk mhm. te Louga mooy rendez-vous la yoo xam ne mhm. dafa am ñu koy xaar à ñoo xam ne loolu moo leen di faj. Mhm. moo leen di soulager. ndax di nga gis koo xam ne am na lu ko metti mhm. mu gis kenn ñuy waxtaanee loo xam ne mu mhm. gën a metti bosam. mu gën a dal xel. am koo xam ne ñàkkoon na yaakaar. mu gis koo xam ne jaaroon na fi ñàkk yaakaar xëy yaakaaram fasuwaat. mu ne man kat du ma du ma découragé. comme kii moom mbiram sotti na. à travers Yoor-Yoor. à travers Walfadjri man duma dellu gannaaw du ma yoxi yoxi dinaa gën a jàpp dinaa gën a wër. dinaa gën a seet. dina gën a mën a participer ci émission bi nga xamante ni mooy yooyu bokk na ci kaddu yi mu yëkkati woon moom suñu ganu démb bi mhm. imam Mouhibine Sow mhm. jiite foofee ci domaine ak it liberté 6 gi nga xam ne mhm. sorewul ak Walfadjri bokk na itam ci la nga xam ne comme li ngay wax nii rek dama lay fekk si Mouhibine ndeysaan ñu ngi koy nuyu di wax ne programme bi continue day continuer insha allahu rabbi day continuer du yem fii ci kàttanu yàlla aywa tabarkalla ñu gërëm la jaajëfal Oustaz dama koy xam naa rek tey dama lay kiiwalaat waa bàyyi la nga delluwaat parce que démb bëggoon nañu ko def mais démb ak suñu gan beeg yooyu waxtaan wi taroon lool macha allah te itam dawoon yaram lool wax dëgg mhm. yàlla mais bon àddina mi ngi noonu daal mais sëñ Baara bàyyi ma ba nga saafonte ak njaboot gi rek dégg nga ba suba allah ñu man ak Seydou Oustaz Seyd ak Mass Mbuub wéet ñu ci jotaay li ñu ngi fi ak euh, soxna si di wuyoo turu soxna Oulimata Ba bàyyi ko ba jaxaw sin ñëw suñu fi ñëw fii si Ndakaaru suñu émission bi ñëw bokkandoo ak ñun jotaay bi waaye itam euh, àndoo ak ñun ci jàngat gi nga xam ne moom la ñu yëkkati woon ci thème bi waaye itam ñëw ak ñun ci li nga xam ne yow itam yaa ngi koy dund asalaamaaleykum Bapulo. Mhm. maa ngi lay fay nuyoo bu baax. dëgg la jërëjëf. di nuyu Mass. Mhm. di nuyu al oustaz. Mhm. di nuyu ñi nga xamante ne. ñu ngi ñu nuyu waa kër gi yëpp. di leen ziar bu baax nag. ndax di leen sant tamit. an ko hal pulaar ka waaw man pulaar a nani naa dégg naa bu baax bu baax mujj wala seede tan non moƴƴa a moƴƴa am min seeɗa tan rek wala anga sikka min minanaale non mbiɗa na an ɗanani ɗanani haalani fof anga ah, moƴƴi a heeɓi jarama ah, ñu gërëm ajaratu penda diallo gueye ndioro basi yayu haale yi ah, di nuyu tonton pierre dañu fàtte jacques gabriel préra yaka diagne naar yaka yaay baba diagne toxo aliou balde ñu ngi lay balde du ñuy Babacar Lo Lo Ndao ak képp koo xam ne yaa ngi ci jàpp mu jigéen jóg mu ngi cappa cappal ba ñu xaw a neex xool cant ak ngërëm ñel na ko euh, Oustaz Seyd ñu jël di di kat tuuti rek si li nga xam ne moom la ñuy waxtaane woon euh, nit ki birki démb ñu invité woon ci Ndeye Sadio euh, Gadiaga démb ba ñu invité woon mu imam Mouhibine saw bokk ak Fatima saw mi nga xam ne moom la ñuy wooy bàjjan 2008 mm-hmm. ba tey mu dem fukki at ak ñett ci ren mu nekk loo xam ne lu dëxëñu ci biir la bari na lu ñu wax ne nit dafa te mu réer la mm-hmm. déedéet mën nga ko tuddee réer mm. alors ko du réer parce que li dëxañu si biir li sabab li ni mel dafay bari lool bisimila euh, alhamdulilah mu doon soxna soo xam ne mm-hmm. mokkal na alquranul karim jàng na arts martiaux mm-hmm. yow yar nan ko yeewu na am na jom mm-hmm. bëgg liggéey ba lépp lu mu gis ne war na ci mën a tuur ñaqam ngir am lu mu yóbbu këram mang ca woon dem na ba nekk Comora woman nekk garde rapproché wëlbatiku magam bi di Muhibbin am benn collaborateur am boo xam ne yàlla dogal na mu sanc benn poste de santé mu daal di koy recruter foofu mu fay liggéey yàlla ak yar ga ak mbaax ga ak yiw ga ak xam-xam bi ne ci moom muy alquranul karim ak art martial bi nga art martial bi nga xam ne ku ku koy jàng li ñu lay jàngal mooy da ngay am yërmande. Mm-hmm. yàlla dogal bi mu ñëwee ci poste de santé bi mu def jeexit bu doy waar. Mm-hmm. ñëpp bëgg mu leen di piqûre ñëpp bëgg mu leen di. sol perfusion ñëpp bëgg mu leen di accueillir ngir lan dal ga ak mbaax ga ak yiw ga. Mm-hmm. loolee nag yàlla dogal ñu war a am ñu ñu wàññi ci biir poste de santé bi. ki nga xam ne moo fa njëkkoon. yaakaar ne mooy buum di buum mi te am na ay jikko yoo xam ne nekkul jikko yu ñu du jikko tànneef yàlla dogal ñu ne comme que demee na noonu benn pombiteer bu naree yàq saaku ñi seppi ko daal di dajale yeneen pombiteer yooyu képp ku bëgg fejat yaa xam da ngay firir wala loo mën a def mhm. nga mën a am pomme de terre moom nag mu wëlbatiku jël mbir mi daal ko def guerre mhm. mooy kookee ñu wàññi di woo ki nga xam ne mooy directeur hôpital bi moo koy jiite di ko saraxu ànd ak yaayam ngir mu jëlaat ko di ko indil ay yére di ko ko may waaye ki nga xam ne moo jiite woon hôpital bi ne moom euh, centre de bi ne moom du ko jël bi mu mu xet bi laajee nee na ko moom wóoluwuma ko mbir mi nag daal di am benn tournant soxna soosu nga xam ne bëggul woon Fatima Sow moomu wëlbatiku biñ ko dàqee mu bëgg a ak moom saa yuy dem marché jaar fa di ko nuyu di ko woo téléphone ba bés mu ñëw indil ko ay dàll ne ko dàll yi moo gën a ànd ak yére bi nga sol mhm. walbatiku jël ay dàll yi nga xam ne Fatima moom la soloon mu yóbbu Fatima dal di jël dàll yi sol bi mu ñibbee seen waa kër gis ne dàll yi mu sol bokkul ak yi mu xëyee woon mhm. ñu ne ko dàll yi fu mu jógee mu ne kat kookee ñuy bañ a wax turam mhm. moom moo ma ko jox nee na kat da dàll yi dafa nuroog li ma sol mhm. ñu ne ko yow al seen dàll mu ne moom kat du ko yittewoo pour mu aal ko ko ay fan jamono jooju nag la commencé soppi jikko mhm. muhibbin nee na jamono boobu du ko woo du ko tudd du wax ak moom mhm. kon jamono boobu moom xamul li xew mais ay sëram gisoon nañ benn changement bis bi nga xam ne mooy alxamis bi mu waree bi muy réer wala bi ñu koy confisqué wala bi ñu koy njabar wala bi ñu koy jàqale ak xelam ak wala bi ñu koy nawtal bés boobu soxna si woos na ko mooy kooku nga xam ne dàq nañ ko ci poste de santé bi ne ko dama la bëgg invité añ mu ne ko man aw ma pause ndax li may liggéey mayuma may génn di dem mu insister mu bañ mu insister mu bañ noonee la continuer di liggéey ba heure wàcc jot seen waa kër gisuñu ko ñu woote ci poste de santé bi ñu ne ñoom ñu ngi yaakaar ne yegg seen kër ga noonu la ñu jaaxlee commencé di wër ci àjjuma ji ñu xëy di woo ka nga xam ne moo ko invité woon mooy soxna soo suñu dàqoon mu bañ a jël téléphone am ba vingt heures jëlul téléphone mbir mu dekk mbir boo xamante ni bii yóbbu nañ ko police jëlee nañ ko fa yóbbu nañ ko ci procureur de république. Mm. ci résumé lii mooy wax ci. Mm. boobook léegi 2008 la woon. Mm-hmm. ba suñu joon yàlla tey. Mm-hmm. mi ngi judd woon en 82. Mm-hmm. mu doon mbir boo xam ne. bu doy waar. yaay ju jóge ci feebar. addunaam safatu ko dara. tension bi di monter. ndax mooy caatam walbati ndax mooy caatam. bët bu set day jël garab. <coughs> mu it bii démb wax na ko. nee na sama yaay amatul caf ko dund. Oh. dara safatu ko. ndax lan ki nga xam ne moo nekkoon caatam. Mm-hmm. ak ñu mu jaxasoon ak ñoom ak espoir bi ñu amoon ci moom. yiw gi ñu amoon ci moom. Mm-hmm. loolee lépp daal di nar a naax saay. te incha allahu rabbi du nax saa yi soxna Thiaba tabarkàlla macha allah résumé bi am na solo ba dëxañ ci rek ne moom jot na soxna soos nga xam ne xaw nañu ñaaw njot si moom jot nañu ko woo chez police ba mhm. dal di ko enquête ba jot ko téye ñaari wax ñaari bés mhm. muy 48 heures mhm. après si la ñu ko bàyyi pour ñu nag lijjanti téléphone bi topp message eh, topp appel yooyu yooyu tam dafa nekkoon lu jafe moom ka yoroon wàll nekkoon si wàllu yoon bi dafa ne leen def na ko mais ñoom gis ñu bu ñëwaatee danaa ne mais gis ñu réquisition ba tey amagul te ñoom normalement nit ki nga xam ne moo am jafe-jafe warta dem directement ca kër yi nga xam ne mooy borom téléphone yi pour ne pas xam nga rek publicité yooyu mhm. euh, yow police ngay déposé sa plainte mhm. ñoom ñooy topp yëf yi mhm. mais nag pour mu am loolu problème la woon mais dafa mel ni comme si bu dara xewee doo bëgg yëf yi feeñ da ngay da ngay laalaale ñëpp ba nga xam ne ñoom seen xel day nekk feneen wala leneen ci leneen ba duñu tal li nga xam ne moom moo moom moo war ñu war ko tal daal parce que nit moo dem nit moo dem te bakkan dafa mm. fort li ko yóbbu yéeme lool mm. yaakaar naa démb suivre nga ko ba émission bi jeexee jël nga sa téléphone woo ma mm-hmm. euh, Mass ban commentaire ngay def si li nga xam ñu koy woowee bàjjen euh, treize ans hmm. treize boobu ba léegi yaay nekk ci naxar njaboot gu jaaxle hmm. xam nga olof Ndiaye dafay wax baat bu am solo hmm. olof Ndiaye nee na lii ngelaw yi daaneel ñay bu rombee tànn dafa bàyyi dund te képp ko am ku mbon ba am tubay yëre ja da lay të xam nga dañu nekk ci société bu doy waar soxna Thiaba société boo xamante ne nit ñi bu gëmatuñu yàlla wóolatuñu yàlla faaletuñu yàlla société boo xamante ne nit ñi dañoo fas yéene jóg gis sa mborom muy tedd di dimbali ay waajuram nga aññaanee ko ko <laughs> ba nga ne kii kat fi mu toog nii fii mu toog laa bëgg mu toog la mu jug mu jugee fii. rek moom yëgul tiinu caba boo déggee euh, dossier bi ak liñ ci wax yëpp. yàlla bu la da xam ne lii yaa anguille su roche. Mm-hmm. maanaam ñaaw téef say ñu ci biir biir dossier bii xale bu jigéen bu jàmbaaree loolu buy xëy fajar njël dem ci poste santé bay liggéey yaat yaatuwaayam ak bëgg ni dëbëg cofee la mag tax tey jii. ñëpp bëgg ko ñëpp naw ko ak farlu ci diine ak farlu ci diine tax na weeru koor lañ nekkoon mu mu wax leen mu sàkk ci ñoom pour ñu teel ko bàyyi très bien xam nga kooku maanaam ku ñu yar la ku société bi soxla la am na façon ñun ñoo xamante nag fu ñu dem nag cabar dañ leen di bëgg dañ leen di naw ndax seen comportement ndax nañu mel waaye nag cabar hmm. sëpp la ko bënn mi ngi ci biir hmm, lu mu doon fépp hmm. la ko bënn mi ngi ci biir loo xalaat démb dégg naa euh, ndeysaan imaam maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ku yaru na macha allah ca la mu wax ci dal ga hmm. ma xam ne mënta wax lépp parce que am na lu ne ci biir boo xamante ne bu ko waxee njaw dana desin xam ne ndax dossier bu ne police la mais femme bu ñu mën a jàpp. waaye police big ba sànq. waaw xam nga ca ca ah, enquête bi mi ngi bëgg a yàgg. danaa dañu wala ñu noppiloo xam nga lu tax caba gis nga dañu nekk réew moo xamante ne justice bi ñu baal ma justice à double vitesse la. des fois mu am dossier yoo xamante ne tey dangay toog xool doo xam dossier yi nan la lay nuru erreur bi ma njëkk constaté. mooy mooy ba mu demee ci euh, commissaire la xaw ma euh, ki sant Sarr ca police ba. Mm-hmm. mu waroon def réquisition. Mm-hmm. yóbbu mbir mi. ci këy euh, bërëbu liggéeykaay boobu Sonatel la xaw ma. Ah, itam non foog parce que foog dossier bi tax ñu wax ko ca ba. comprendre déggoo sànq waaw kër ñoo ñi nga xam ne ñooy. si ñoom lañ jóg ci wàllu téléphone. mu ngoog ci wàllu téléphone parce que parce que léegi bari nañ fii. léegi def léegi li ma bëgg. mooy foofu. Mhm. mooy li ñu waroon def mooy dafa am lu ñu waroon bind. Mm. envoyé ko ñooñu daar daar. ñu daal di répertorier portable ndaw si xam kan moo ko kan moo ko et lii ñu wax ni caba. te dañu dañ koy taal par guddi. voilà parce que nit ki koy taal da koy bës day bës 602. pour déglu message yi am mu doon kookee. ku dégg dossier bii te dëgg rek soxal la te ngay wax ko ku dëgg. waaw xam nga ne ndaw si dañ koo fëkk yóbbu. ndaw si dañ koo fëkk yóbbu benn ñaar wala mu déddale ko xelam nawtal ko parce que mënoo nekk ak sa sago mais di liggéey normalement mais nit ñëw xëy bi eh, ceeb ay fii sa facile ah, dafa yomb trop ah yow xëccoo nga ak nit poste te ba bi yëbul bérébu liggéeykaay bi say jékki-jékki ñëw naan ko sa eh, mu mbuboo ngéeg dal waaw say noonu démb bu ñu a seen pexe seen pexe sottiwul te noonu du ma sa bàyyi sax. mais bu ñu ñëwee bay jël bay bay jël say dàll du yóbbu tamit foofu yaakaar naa ne seen xel xel ndaw si waroon naa mën a ñaaw ba mu koy bàyyi muy jëli dal di yóbbu. ca ba ñaata jigéen foofu mu yow mën nga ko tuddee naïveté alors que maanaam maanaam kii ko jàppee comme boppam wala yooyu te fekk am na leneen. parce que xëy na balaa muy am li mu bëgg ma ne xaaral mais mais ñëpp xam ne dereta ko laal dereta ko laal Assane Ndiaye way na ko ñu ngi koy mhm. nuyu doomu yaay nowee bu ngéwal gi dama ne mhm. moom mën na bañ jàpp ne comme ne comme naan ah kii li kii kii fi ma jaar ak moom ñu ñëw mel ni ku ma jox place am ñëpp bëgg ma. loolu mhm. me loolu métti ko mu ñëw di chaque jour mu ànd ak yaayam wala chaque jour mu wootee wala mu ànd ak yaayam ñëw di seet patron pour ñu jëlaat ko. Mhm. kon place bi jaral na ko lu bari na coono yu bari woon na. Mhm. kon bu dikkaatee ñëw di def nii. bu doon àndoon ak xelam mm. jamono yooyu lépp lu mu ko def loo wala lépp lu mu ko sant du ko nangu mais dama jàpp ne am na lu mu njëkk def lu jiitu ba xëy ak ba xe ba naan xelam ba nga xam ne saa yu ko bëggee def dara mm-hmm. daf koy def facilement mm-hmm. parce que ñëw si ni ko éviter añ te am foo jaar wala jëgi jël ay daala di koy jox xam nga xam nga caba ah. eh, da nga di doomu doomu doomu ndakaaru nag dégg dafa baax mm-hmm. nit ku dégg ku dégg nii man mi parce que xam nga lu tax macha allah dama bàyyi catu xam xam nga problème bi mooy. say <laughs> euh, dafa am loo xamante ne boo ko déggee da ngay xam ne am na loo xamante ne nit ku àndul ak sagom bu koy def. <laughs> parce que koo xamante ne yéen wala jàmb guddi yéen wala jàmb bëccëg. Mm. li mu fexe muy gor say tànk. fa nga toog la bëgg. te mm. puis réew mi dañu war a delloo xel yi suñu borom. Mm. dañu war a gëm yàlla. gis nga xëccoo poste nii. la mu jaral nit ñi da ngay xëy gis euh, sëriñ boo xamante dañ koy rang. suba ba ngoon. xam nga leen fay yóbbu. Mm. Hmm? ah place bi caba toog de man wax dëgg yàlla eh, nangam moom vraiment parce que caba mi ngi sañ nangam eh, sayit fii mu toog de man wax dëgg mm. yàlla su ma sañu di toog maa fay toog maa fii mu toog nangam nangam waaye yow doomu diig bi moom de mi ngi yóbbu yaay màkk ak nangam moo bëgg naa mu dee mbaa mu dof allahu akbar bëgg naa nangam sëriñ bi na la nag fexeel ba ay dàllam ya mu sol nee ko fexe ba téel daal yi indil ma ko bis boo ko indee nag dàll yi ca lay tàggook sagom te fa muy dem du xam fan la portable bu ñuy taal chaque guddi 602 kooku tey jii gis nga nañu waxante dëgg nag jaba faay am na ci au niveau de la gendarmerie ak police non c'est pas la gendarmerie au niveau de la police est-ce que comprendre nga parce que jóge nañ fa dem procureur aussi yaa ngi dégg dans la république ba léegi dossier bi mënta mënta mënta mënta leer ministre de l'intérieur dugal ci loxoom ministre de l'intérieur dugal ci dugal ci loxoom kon je pense que tey jii femme boobu ñuy wax je n'accuse personne parce que am na ñun ñun ñun est-ce que suñu liggéey rek. mais yow doo fa dem wala ñemewu. non euh, euh, waaw dinaa fa dem incha allah. da ngay dem rek laaj da def sa liggéey. waaw daal ya ñuy wax yaa ko joxoon. yi ñaar ko ay. genre yu détails yu ndaw fu mu dugg danaa fa dugg ba xam kan la fii laa ko waxee. waaw donte ma danaa fexe ba fan fan fan la dugg parce que aussi sénégalais ñi seetaan dafa am lu ñu bëgg mu leer te droit de réponse dafa am. et puis man suñu ñun dañuy leeral sax ñun dañuy seex lañu wax dëgg yàlla. jaaxaale lañu tëddee mais aussi thème soit da ngay wax nit ki directement ou da ngay wax nit ki indirectement. muy directement di indirectement ku mënti doon ñun lu ñu war mooy suñu kéemti lay kattan euh, am la version de faits. dëgg yàlla. Mm-hmm. nit ki moom itam ba xam moom lan lay wax ndax gis nga ko ba mu ñëwee ñëwee wax loolu li ma njëkk dégg mooy ay dañ ko dàq ak yooyu ba ma naan kon service yi war na ñu bàyyi xel itam ci loolee. Mhm. service yi service yu baree bari. ñu bàyyi xel ci yu bari. Mhm. parce que des fois nga jël nit ci. Mhm. soxna wuli matam ñu ba ñu ngi ñëw léegi ci yow. nga ñëw jël nit ci am ku fi nekkoon. moo xam mi ngi doon dox moom tamit. heureuse moo tax souvent may wax ne ki fi njëkk nekk tamit. ak moom xam na ngay xalaat ëllëg. nit mën na fi ñëw gën laa baax mm-hmm. yow nga naan doxalee nee moo xam si sëy la moo xam si bërëb liggéeykaay la ngay defee nu la neex yaakaar ne yow rek yow la yàlla may xam-xam boobule keneen ñëw gën la koo mën macha allah léegi bu ñëwee service tamit ñoom dañ ko jàppee dara parce que dañ ñaan en matière de business wala en matière de liggéey y a pas de sentiment dañuy jàppale dañ ko war a loo rek waaw dañuy waaw compétence la ñuy xool ak yooyu mm-hmm. léegi nag léegi nag mais ñoom problème bi du situé wu entre patron euh, moom borom service ba ak kañu jël wala kañu dàq ka ñu dàq mooy indi problème ak ka ka remplacer ndax day jaakaar ne ñëwewul neen mm-hmm. li tax mu ñëw rek ñoom ñëpp jox ko bopp xajal ko mm-hmm. kon yaa quelque chose parce que de fet kooku day defante ak moom day indi mm-hmm. xeexoo te service yu bàyyi duñ ci bàyyi xel na service yi bàyyi xel même boo dàqulee nit ki xool noo koy rafetalee nga wàcc ko fi wala xool nooy defee daal man daal loolu laa d'accord foofu d'accord ma ak yow ah yaa wax li xam nga tax caba parce que caba askan wi seen bopp dafa am loo xamante ne soin de service la boo mënul ger askan wi comme il faut saa ngi dégg ñuy ñëw ci hôpital ba di am naqar ñëw hôpital ba nga yor benn jikko nekk alngatara munoo fàcc seen seen aajo ñu gis kenn koo xamante ne tey jii contractuel la wala koo xamante ne transport lañ koy jox te la muy def ci biir hôpital ba yow xaaj ba defoo ko te jàng na ci biir hôpital ba xam-xam boo xamante ne mën naa yor nangam mais bu ñu waree wàññi benn personnel tey jii yaa ngi wax injuste parce que da nga xam naa fi ngay waxee bu baax mais problème bi mooy loolu tey jii bu ñu tànnoon ndaw sa teg ko foofu maanaam ay njombe da dafa ëpp mais ñoom gis nañ ne kii buñ ko jëlee teg ko fii. Ah. moom la askanu gën a nangu. waaw léegi am la kay mën mën na ko. léegi ana résultat bi ana njeexital yi. ah ana njeexital yi. njeexit xanaa ñu gëm njeexital yi. c'est que loolu lay problème oustaz nañu wax dëgg rek dafay am na rafet ak lu mënti xew na rafet fexeel nga naxtaan ak moom wax ak moom sax nekk lii ak laa gis nga lii nag wala nga toog ak moom waxtaan ak ñoom si si loolu dafay baax aussi pour delloosi ko war na kat lii bu mu jaral nag ni dara kii nii ak naa la demee mais nekku ne dafa def lii ak laa ba tax parce que koy joxoñ baaraam tuuma boo xam ne dangay jàpp c'est comme borom jaaykat kat ah mm-hmm. diw mi ngi jaay ba mu ñëwee ba tey man jaayatuma dara ba amoon boo xam ne Gambie la woon te ñaari doomu réewu Sénégal la mm-hmm. ki dafa mujjee euh, jam ko faat ko noonu la buy jee borom bi subhanahu wa taala mu daal di jóge Gambie dem wutaliwaat beneen dëkk finalement Guinée la ko jàppee ba léegi ñu ngi sàkku mu indi ko Gambie wala indi mm-hmm. tey ba tey yëf yaa ngi noonu jox say euh, doguma la de dafa am benn affaire ma ci bëgg a yokk rek man bi ma déggee histoire ba léegi man damaa jàpp ne femme bi mi ngi dund ba léegi am ngi moom kay loolu lañ leen wax jàpp naa ne mi ngi dund ba léegi ci ay loxo caba wala ñaata kaa lañ fi am fii yoor yoor bari na ñaata jigéen tey jii ñoo nekk ci ay tolof tolof ak i góor yàlla yu bàyyi seen njaboot bàyyi seen kër ñii bàyyi seen i soxna ñii bàyyi seen i yaay ñii bàyyi seen i baay ñu dëddale nekk seen i xel ñu dem feneen sëy fa ba amee njaboot toog chaque jour ñuy dund naqar te bés bi ki tey ba léegi ba jombi tey xamuñu ñoom ñooy ñan ba léegi bu ko defee ñu naan dañoo gàddaay dañoo dem bàyyi seen mbokk fekk am na leneen lu xew leneen li si suuf li si réew mi la kenn mënta wax oustaz Sène si noonu ngay jox kàddu gi rek tawarkalla xanaa duñ ci yokk lu bëri ca yéen waaw di wax rek ne euh, contrat boo gis buñ la koy jox dafa contrat de performance mhm. place bi dañoo koy jox mhm. lii ak lii ak lii lañu soxla ci yow mhm. soo ko joxee ñu jox la lii léegi nag nit ki bu demee ba contrat de performance boobu respecté tu ko kon mu wartuñ ko fa téye lu ñu mën a def mooy ñu dégradé ko mais si mooy dañuy waxtaan ak moom ne ko clause contrat yi lii ak lii la. gis nañ ne kat lii ak lii ak lii mot mëtaloo ko ñu ngi lay mayaat chance. may nañ la d'ici 3 mois wala d'ici 2 mois wala d'ici 15 jours sa dépend de forme. contrat yi day dañuy jóg. su comme ñu place jaral lu ne yow xamoo sa bu fekkoon ne dafa ñu place jaral lu c'est que malheureusement dañuy xam ne lu loxo defar loxo mun na koo dindi. te loo def tey yéex na de ah? yéex na de. waaw bi yéex na am na yeneen yoo xam ne jàllul mais say bi ñu defee jàll tënk ba tënk ñi yor enquête bi. Mm. ah waaw ah, dañuy ba mystique ki yor enquête bi. moo tax nag ka nga doon wax kon t'avais pas compris ba nga doon wax ne est-ce que kooku tam deful liggéeyam ak yooyu moom itam bul xam nag bu bokk ñuy tënk. waaw waxtu bi ñu tënk mm. soxna Oulimata Ba mm. dégg nga bu baax li nga xam ne moom lay waxtaanee. ngay jigéen di yaay dëkk si réew mi même boo dëkku ci réew mi tam beneen réew la te réew yëpp yëpp Afrique la ñoo bokk suñu CEDEAO wallaay fu laa dëkk fi nga dëkk sax waa nga dëkk man maa mm-hmm. def si lii laaj ñuy dugg si yow sa bos waaw loo xalaatee thème bi thème bi euh, li ngeen di waxtaane waaw sama yaram da cee daw wax dëgg ah, yàlla bari nañu jooy démb ndax man damaa xam li may dund yow mi mm. damaa xam le ne ci man ndeysaan waaw moo tax ni ngeen di waxee nii daf ma yóbbu sori wax dëgg yàlla mm. li ma tax a ñëw fii tey loolu la si yooyu la waaw ah, sa bos sama mag bu ma bokkal ndey ak baay bu góor bu jigéen góor bu góor mm. suñu yaa sama yaay ñun ñaar rek la amoon moo nekkoon taaw mm-hmm. euh, wax dëgg yàlla mu xëy rek génn dem mu ngi mot ren trente 30 ans si ren bi muy dem boobu xale laa maa ngi koy fàttaliku mais doonul lu bari loolu mhm. te gis nga ma tey. jot naa fi sey am naa fi ay bant. Mhm. sama papa sonn na fi misère na ko def na lu ne. Mhm. sama papa gaañu na sama yaay moo fi des. fu nekk nii màgget na lool dox sax mënatu ko. sama yaay. war nañ ko nag fu ne laajte nañ fu ne. la demee. Euh, dafaa jóge woon ni woon Malika fi suñ benn nijaay ne dafa wut si liggéey mm-hmm. doon fi xooslu mm-hmm. uh, sama yaay jóge jaxaaw dëkk bu ñuy wax kaaxo daal di koy ñëw seet si fekk ko fi ci sama nijaay bu ñuy wax Boubacar gaañu na mm-hmm. Malika la dekkoon léegi suñu nijaay jooju nag uh, am benn rakkam bu góor bu ñuy wax algasi Algasimu jóge Ziguinchor ñëwoon fii Malika fekk ko fa daal di waxtaan ak moom mu ne ko man daal di man la gisee sërif membre sërif ba la tudd sa nekkin nii neex na ma trop su ma sañoon dangay ñëw ñu ànd mu daal di koy wax sama nijaay bi mu nekkaloon kooku ne ko d'accorduma su ma sañoon balaa ngay dem dangay dem ba sa yaay mu daal di koy ne nijaay kii nga xamante ne moom moom moom laa nar a àndal yan ñaaree na bokkunde ak baay kon confiance bi sama yaay am si yow ma nekk si yow su ma demee sama yaay tamit def may ne rek demal bàyyi ma ànd ak moom rek dem jéem a xool foofu xëj na foofu gën fii. moom sama mag bi mooy wax loolu moom sama mag bi daal di ànd ak moom dem ci dem boobu mu dem jigéen soor nag ca lañ ko gëjee gis parce que nekk na ak sama nijaay sama nijaay yooyu jotuma ko xam ca la génn ci këram dem ba tey ba suba. nu mu génnee këram jotoo xam ndax mer moo ko fa génnee mu joteel moo ko fa génnee wala mu doon déedéet wax dëgg yàlla. loolu jot dese nañu leer c'est parce que jamono yooyu man xale laa aw ma woon yenn contact yi daal te boobu tamit téléphone bëriwul comme ni mu bëree nii. Uh-huh. mënu ma woon déplacé yoo fële dem fa ma dégg ne foofu la ne xaw ma fa. Uh-huh. affaire bi daal nii la demee. Uh-huh. mu doon daal dem boo xamante ne doy na waar trop xamuñu daal mais tamit euh, balaa booba balaa mu doon jógee foofu ñëw fii Malika fii. dañ doon def constat que ne suñu kër daaw foon mun a toog waaw ah, du mën toog day bougé lu bëri des fois day jóge suñu dëkk dem fu ñuy wax jaxaaw des fois mu jóge fa dem fu ñuy wax tey la ay yooyu dëkk ñuy war daal mais bu fa nekkee nii su xamee ne sa papa da koy ñëw seet day jóg mu dem feneen mais bu toogee lu yàgg day ñëwaat kër ga mais bu ñëwee du fa yàgg ay benn fan la fay def ñaari fan mu demaat. Mhm. moom kër ga la mun woon toog kër moom moom daa mel ni loolu moo nekkoon problème bi mais tamit jamono yooyu waaw jamono yooyu sama papa di doon gis ne que kii lan moo tax lii benn doom xam nga rek mag ñi kon peut-être xëj na dafa waru tamit dafa merul li mu war a mel ak yu mel noonu mhm. Mhm. ndekete boobu peut-être daawul tux daawul jëfandikoo yenn yi déedéet déedéet peut-être ñun suñu kër ci daara la ñu juddoo ci la ñu yar mais ndekete peut-être waaw ndekete am na lu ci doon ñuul ci sama xalaat li ci ñuul mooy peut-être li woon dem li waral dem bi hmm. mooy xawoon na feeñ tuuti dañ ci teelul woon bàyyi xel mooy ñàkk mun toog boobu doon ñàkk toog ci biir kër ga boobu mm, mm, sama xel ñaaw na si moo leen ko xamal ndax da ngeen dem ba ngeen jaaxlee ngeen dem si yenn si maama ni ñu wax waaw ñoo leen ko xamal wala keneen jot nañ laajte nag jot nañ laajte jot nañ laajte mais xam nga tamit euh, man moom du may bëgg xuus xuus si yéen ah dañuy bëgg xuus dañuy bëgg a xam de <laughs> parce que pour wan ne ne xam nga man souvent dama naan man xale bu ndaw euh, am na sañu koy wax parce que ñoom ñooy professeur bi la gën a mag mooy xale yi ndaw mais man gëm naa ne àddina si la bokk àddina bi ñuy xas des naan ku ko jàpp day war ak naa ngi day àddina barke na laa jàngal lu bare bare loo xam ne li ngay jàng si àddina nii ah, euh, yaay boo dañoo bëgg rek nga gën ñoo xamal daal yenn détails yi waaw xam nga euh, boo gisee ma ne la tur nag hmm? déedéet du question tudd tur sax mais gaan wax nañ ñu gaane du du neen waa kan la kan moo def loolu non waxuñu tur ka exact kan la mais dañ ñu le loxo la dañ ko génnee wax nañu ko waxati nañu ko mais yu mel noonu man duma ciy bëgg di wax. mais seen ñaaw na si. waaw sama xel sama njort man ñaaw na si. parce que maa ngi ciy dund loo xamante ne maag yàlla rek a ko xam ndax wax dëgg yàlla. metti na lool. yow sa yaay moo amoon ñaari doom yi. sama yaay ñun ñaar rek. maa ci dem kese euh, sama papa sama yaay rek la amoon. Ah, waaw. waaw dëkku leen en famille dëkku leen ak kenn yéen ak yéen non dëkkoon nañ en famille mais famille bi nga xamante ne doonul famille kii de wax dëgg yàlla jàmm ak sa waaw sa san papa nijaayam la nekkaloon mhm. mu yor daara ji bi nijaay ji gaañoo moom mu des si daara ji moom san papa san mag bi bu muy dem san jamono yooyu san papa moo doon jàngal alxuraan foofu kon kan la woon doon ah kan moo doon ci ënd ba muy dem jotagul woon am jabar mais boobu waxambaane bu góor la nii rek boobu motalagul ñaar fukki at peut mais boobu am na ku doon bëgg aussi mën na ne jotuñu ko dégg nag. Ah, moom xale la mais man. Euh, Babacar ak Mary dama gis muy wax ma gis naqar ci moom. wallaay. que su ma la ngay wax benn bu borom benn la woon ci yow. waaw. Hmm? tey jii ban ban yëg nga am ban sentiment nga am. Ah. Euh, Mass damay dund lu metti mhm. xam nga ngeen doon ñaar rek. Mhm. cundum cundum kenn ki dem ca ba ngay ndaw Mass man nii di wax ak yow. liggéey góor gu ne liggéey naa ko. ndax moom ndax moom. Oh. ndax daaw ma woon bëgg gis sama papa di sonn yenn coono yi te boobu sama papa mu ngi jëm mag. Hmm. dama demoon ba mujj bi sama papa buy ruuj maa ngi ruuj. sama buy sakkat maa ngi sakkat buy rab bu ñax maa nga ca daawoon naa liggéey liggéey góor di liggéey liggéey jigéen. Hmm. demoon naa ba à la dafa màgget ba maa ngi woon dakaar fii doon xooslu mais dama mujjee woon bi toog. Hmm. toog fa c'est parce que mujj bu toogee du jóg mais du am ku ko jàppale. nii laa mujjee toog ci wetam jamono yooyu am naa boroom kër mais sama borom kër mu ñaloon na ma ko. Mhm. falaa toog ba mujj bi sama papa gaañu. Mhm. gis nga fu mu nekk nii maa ngi sëy mhm. sama yaay jot pour ma fay dem sama fu nekk nii bu jógee di dox comme xale buy jàng dox. Oh. bant lay yor di dox naxar day a màgget doom ji xel maa ngi ca doom ji man maa ngi fii ne ci sëy bi xel mi ne ca kàddem ci sama yaay jooju su ma sañoon. xam nga du demee nii. Hmm. su ma sañoon ak nu munti métti moo tax démb rek ba ma koy wax ne caba woo na ma barke démb mooy bi nga ma woowee nee na hmm. euh, ski nuñ ko waxee suba mooy hmm. démb waaw déedéet barke démb eh. mu ne ma mercredi bi na ñëw ma defal la émission démb su guddi ma koo téléphone loolu ma njëkk a laajte mm. depuis ba ma ko dalee wax ne woote naa wal fajiri mm-hmm. nee ma lii ak lii ba première invitation bi ngeen ma fi invité bi ma damaa yëg rek moom moo yëkkati téléphone am mu ne leen waa sama yaay boppam wóor leen ma uli ba xam yaakaar bi mu si am waaw yaakaar na sax su ma fi egsee rek mm. euh, bu ñu nee salaamaaleykum. Hmm. de yóbbu nañu ko wàllu fii rek nan la tudd sama yaay Aïssatou Ba la tudd. non kii kii réer euh, Mouhamadou Serifou Ba. Mouhamadou Serifou Ba. Serifou Ba Mouhamadou Serifou Ba ñaata at la war a am. non war na mën a am léegi est-ce amul lu mat ay juróom fukki at 1960 la judd. Hmm. indépendance du Sénégal ah 60 hmm. ans la am 60 ans. Ah, ah, euh, parce que. Ah, bi muy dem ak léegi matu muy mat fanweeri at même bu amee photo sax jógi photo. yor na am na photo bu ma fi yor boo xamante ne photo bu yàgg na dafa dem ba xoosu. Hmm. waa moo ko ay xaritam yu mu photo ndooloon foofu bi mu demee Ziguinchor. bi mu ñëwee seet si nijaay ji fii Malika indaale woon ko mhm. may ko nijaay ji ba fi sama yaay demee sama nijaay yox ko sama yaay souvenir boobu lañ ndeysaan mën naa sax mën naa xamul yóbbu nañu oustaz na bu la gisee mën naa dellu si amiin amiin souvent dafay dafay am mbir yoo xam ne souvent nit duñ ci bàyyi xel xew mhm. mi ngi koy wax àdduna mooy guddi ak bëccëg mhm. ak li xew ci diggante bi nit ñi di dem oto yi dem picc yi naaw yooyu yëpp day am ay tegtal yoo xam ne dafay joxe ne doomu aadama ñoo fi dul bàyyi xel mhm. ndax boo amee doom ju góor mhm. oh, saa yoo duggee ci kër gi mu génn mhm. saa yoo duggee mu génn ah ajaratu caba soo duggee mu génn nga ne waa qu'est-ce xale bi dafa mel daf may daw uh-huh. lu tax mu may daw loolu mooy questionnement bi nga ne ndax dafa am jinne bu ko topp wala dañu tibb tànkam wala dañ ko euh, euh, génne kër gi. laaj bu ne da ko laaj. loolu yëpp da ko war a laaj. en tant que kilifa doon da ko war a taxaw def ci sa mën-mën. Mhm. jàngal alxuraan nga def ci pexe soo ko amul am na ñoo xam ne am nañu xam-xam ci loolu. Mhm. Mhm. nga dem ci ñoom nga jege leen. mais peut-être comme ni mu ko waxee dafa jàpp ne mbir la boo xam ne dafa simple. fekk simple ndax loolu moo indi lii. ndaxte euh, kii nga xam ne bëgg na xoslu pour dimbali ay waajuram bonut mhm. anut la xelam mhm. dañ ko nawtal wala mu doon koo xamante ni bi liggéey nañ ko ba dëddale ko def ci kër gi mhm. ndax dafa am yoo xam ne buñ ko defee ci kër doo jéggi kër googu yow su dee sa biir kër la yow boo fa toogee day mel ni ay puso lañ lay jam wala ay rab lañ lay jam moo nekk ci digg bi noonu jërëjëf Balde tabarkàlla xoolal depuis boobu mu dund 1960 jóge bi muy am ay 18 ans kon ñaata da ngay wax ne 42 ans. mi ngi ci àll bi. mais ka mu fekk si woon aussi ndax dafa amoon ay soxnaam ay njabootam ak yooyu. waaw mu ngi woon ak ay njabootam foofu. kooku noonu waaw Malika waaw. Hmm, musu jot ak ñoom. déedéet déedéet musu am ak ñoom problème. fii hmm, hmm, suñu ko benn yoon. déedéet jotuñu ko ci dégg juste une question moo tax. xam nga rek foog ngay laajte du ah, mu koy dafa bëggoon am dem feneen foo xam ne. amaana li mu fay am dina gën a bëri. dama xalaat man kan moo wa a am soxla si moom ba di ko kii lay dikk. di xam nga expérience ngay parce que lu ne gis nañ ko <laughs> fi ci réew mi gis nañ ko fi ci réew mi parce lii muy enquête nii di gas <laughs> eh, kii dafa raté vocation <laughs> jërëjëf ci instant yi of nag lañ ko waroon yóbbu ma dimbalati ma enquête yi ma dimbalati ma of la waroon dem dana la enquête enquête bu ñu jàppoon sàcc jox ko caba dana ko a ba sàcc na ko awaay man la waay xam nga mais loolu yëpp day wane ne tey ji eh, yaa ngi wax sànq lii gis nga caba hmm. war ñu toog xool réew mi laaj lan moo waral nit ñi di dem. wallaay doy ñëpp mais da ngay gis borom kër gu ne xëy. Hmm. jékki-jékki yor teraangaam yor ay entreprise am yor jabaram jékki-jékki ne menteng dem. xale bu góor bu ne léegi nekk espérance de vie nekk yaakaaru kër jékki-jékki dem ku nekk borom këram dans de bons termes di ko toppatoo nekk ci foyer am di gérer xëy musóoru tàggalu ba jekk. mais méng dem dem dem yoonam. mais am na ñoo xam bàyyi nañ seen njaboot ñu ngi nekk ñu ngi dund ak seen biir ak seen i kër yor seen i am na lu ñu def ci xelam moo tax mm-hmm. Mm-hmm. bu ko defee nga naan ñoo ko tey tey ñu ko de mm-hmm. baara nee dañ ko naaw bi yoor yoor fa nga daan jaar ak ñun si thème yu bëree bëri ñoo xam ne 40 ans de moom ko imam mu koy bind amoon nañ ci thème 40 ans mu mën nga ni man sama président bi maa ngi jaaxle sa yaakaar li ak la man ko 40 ans kii ñëw soxna Oulimata Ba bi si frère am bi nga fàtte ma turam euh, Mouhamadou Ba moom 30 ans fanweeri at waaw yal na yàlla nit leen si darajal Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba ñu ñëwaat seen ay njaboot yaa ngi sëy boo sañoon concentré wu baax sa borom kër yaa ngi sëy am nga njaboot njaboot gi tam boo sañoon vraiment itam bu ñu gisee seen yaay di jaaxle du ñu nekk kon yàlla yàlla defar lépp